aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi seen mbokk taalibe Fallou Galass Syll ndawal Touba dellusiwaat na tey jii ci gaaw bi yemoo ak ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre Touba xel ma yónni waat mbokk yi fan la ma Touba yónni waat fu ma yónni woon woon tëpp la ma xëy na ma demaatal ma ko ba xam lan ko bàyyi woon te nawet bi moom la koy fekkaat nga xam ne mooy tëli corniche bi ñu ngeen daamaatu jëm sa xaw wala mu jógee saxaw ga jëm ndaamaatu mbokk yi fi yaakaar naa ne ñi fi dëkk dund nañ fi jafe-jafe yu rëy ci nawet bi ñoom ñëpp dañoo génnoon seen i kër amut ko fi màggale noor bi ñëw na nag neewoon nañ nawet kenn mu ko defar waaye noor bi ñëw na ndax ni mu meloon ci nawet bi la ñuy continuer mu noor fi wala déet yaakaar naa ne bu ñu xoolee oto yi sama cameraman war na ko xool tëli bi ni mu tojee yaakaar naa ne lii nii bu fi fekk bu fi nawet fekkaatee ma ne defaatal ma ko xool ba xam la nga fa bàyyi woon dafay am na changement ban changement mooy ndax dégg nañ sa kàddu ndax ñi ngay jéem a defar wala da nga xaarat rek CRD yi ñëw ñu boole ko ci procès yi wala CDD yi wala ñu xaarat màggal yi ñëw ñu wax ko ci cérémonie yi te bu dara desul ñu jëf doo gis kenn ku jëf mbokk yi lii ñaaw na lool ci dëkk bu mel ne Touba pourtant di corniche bi bi ñu ko fi defee léegi yàggagul amagu fi fukki at de waaye boo ko dee xool diggante bi rek ci yàqu waaye diggante bi ci yàqu kenn jëlagul décision pour defar waaye bokk yi xoolal mbedd mi waa quartier bi de ñoo ànd ak chef bi ñoom kat ginnaaw amatuñ fuñ jaar danañ jéem a sàkk pexe kañ lañ leen ciy fekk booy assainissement bi fii la jaaroon di projet boo xam ne ay nangami milliards lañ fi tuddoon assainissement boobu ba fii ñu toll tembe connecté guñ ndax day xaaraat ba woon bu ndox bi ñëwee taal daaw yemoo ak ñaar fukk ak juróom ci weeru novembre trois xëy na ma ñëwoon doo ko waraat di leen sant di leen gërëm di leen xamal ne nag du sama njàmbat man dëkkiwuma fii maa nga dëkk Daaru Salaam waaye Touba moo may liggéey loolu ndax ndawul Touba laa Touba moo may yónni ñi fi nekk ñëpp ñu kàddu goo xam ne man naa joti ci population bi tubaa nag na ma jéebaaneel ma rek ndax man daal sama mbedd lañ yàq sama dëkk lañ yàq te Serigne Touba Xaadimu Rasuul mi sanc Touba dafa ñaan boromam waccal ilaahi maskani Touba abad mis las mi ha bi jaahi man abad yaakaar naa nag ngir ñaan googu nag Touba nuroog turandoo boo ca àjjana duñ bàyyi mbedd maa ngi sant ñëpp di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.